jamono ji dañoo seetlu li nga xamante ni moo di mbirum immigration clandestine wala mbëkk mi daal ñu gën a jëm kanam bés bu yàlla sàkk fii ci réewu Sénégal mu nekk phénomène bi nga xamante ni phénomène bu doy waar la nekk phénomène bu yéeme. waaw pour affaire clandestin ah affaire yi fu ne fu ne fu ne pour jeunes yi toog moom du yomb de du yomb parce que aussi dëkk bi metti na trop te am na ci jeunes yoo xamante ni bi dana dem ba benn instant sars lay teg sa kër su fekkee ne yow dem nga ba mënatoo ko yow daw làqu sax mu lay gënal nga toog ñu di la gis. ah phénomène bi de ni ma ko gisee dëkk bu naqari la rek dëkk bu naqari moo indi lii ñun ñii rek man mii laa maa ngi toog di liggéey de waaye su ma gisoon ay gaal ñii dama ciy dugg parce que fii loo fi loo liggéey pour nga jaay ko mooy problème bi. ku bëgg a dee ku bëgg a dem ñoo yem dañuy nakare dañuy nakare te quoi te gis naa ne actuellement nii. instant nii gars yi ni sama frère yi ak sama ñi ma tolloo ak ñi ma mag ak ñi nga xam ne ñoo mag ñu bëgg dem si gaal bi ñëpp dañuy nakarité parce que dafa am benn affaire boo xam ne dafa nekk si seen biir kër yi mooy que ne ñu jël lépp yàpp leen ko non da nga war a dem jug liggéey non da nga war a dem andi xam nga paa beeg mère beeg yooyu noonu yëpp teg leen pression booy tamit bëgg kut koo kut bëgg a tekki moo waral lii nii dem bi dem si géej gi. ba yenn affaire yi euh, ñàkk bakkan yi di si am mais man pour man loolu noonu yëpp am na fii si réew mi toog ko liggéey ko si réew mi mooy li gën parce que réew mi tey dëgg la quoi réew bi réew bi réew bi man pour man réew mi musul neex réew Sénégal musul neex man bi ma juddoo ba léegi man musuma gis réew Sénégal neex mais dañuy sant yàlla parce que ñun dañoo gëm yàlla gëm yonent bi kon gars yi man pour man ñi nga xam ne tey dañuy dem si géej gi war nañu gën a am motivation pour toog si seen réew ñu liggéey. loo gis ci àdduna rek gëm sa bopp la loo gis ci àdduna rek gëm sa bopp la parce que man dama gis ñëpp ñuy dem ci gaal gi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp koo ci xool rek am na métier nekkul kuy taxawaalu ci mbedd mi daal waaw war nañu war mën a toog fii ci réew mi seen métier ñoom li jéem a liggéey ndax xam ne li ñuy liggéey ëllëg mun na leen jariñ bokk na ci di ko waral li nga xamante ni moom moo di ñàkk liggéey bu ñu nemmee fii ci Sénégal te ndaw yu bëri di ko ñaxtu ñu ngi fii ci Médina ci bërëb bu ñuy defaree dàll fii ñu ëpp si ñoom ñu ngi jógee fi nga xamante ni moom moo di ci région yi ñëw fii ci Ndakaaru daan seen doole donte sax ay jafe-jafe yu tax sax la nemmeeku nemmee ci seen ay liggéey waaye teewul ñu ngi gëm ni toog fii Sénégal tekk fii lu mën a nekk la te tamit ni ngi ñaaxaat ndaw ñi ñu gën a rëy si ñoom waaw toog fii tekki mën naa ne parce que man man de wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla bu baax ndax samay problème moom lu ma am maa ngi koy jéem a affronter sama bopp fajal samay sama bopp samay soxla waaw wax dëgg yàlla maa ngi koy jéem a kii bien sûr mun nga fi tekkee Sénégal bii nii mun nga fi tekkee parce que Sénégal pays de la teranga la ñu bëri jaar nañ fi ñu bëri def nañ fi ay am na loo xam ne ne boo ko gëstuwul mënoo ko mënoo si tekki ku yàgg nag si teen bak fekk la fa il faut ñu yàgg toog si biir teen bi affaire bi mun ñu fi fekk affaire bi du yàkkamti gis nga suñu borom bu bindee destin ne yow da nga war jaar si lii nii par la force da nga fay jaar mais tekki ci réew mi boo déggee nag moo wax la ko mooy cordonnier bi cordonnier bi bien mun nga si tekki parce que tey maliens yi bi ñi daan ñëw si nii di jënd fi dañ daan jënd ay valeur 3 millions 2 millions jamono yooyu noonu cordonnier bi dafa neexoon du ma cordonnier mais xamoon naa ñoom ok lu war a mën a nekk la bien sûr bien sûr parce que kenn ku ci ne sa juddu yàlla bind na ko ala kulli yàlla li nga war a am da nga koy am li am solo da am sens mooy gëm sa bopp boo yoree sa métier nga nekk ci da jéem a xaar yàlla boo ko defee rek incha allah rabbi suñu borom mën na laa dimbali parce que du solution nga jël gaal dugg ci gaal yar 400000 dugg ci gaal dem jëli gaal nii perte sa bakkan ci lu loo xam ne du dëgg du yoon booy teguñu ko fenn. teguñu ko fenn fenn parce que ku mën a am 400000 liggéey ba man gëm naa ne boo yokk say outil yokk say toile man gëm naa ni yàlla war na laa war a mën a dimbali de suturaal la li nga bëgg nga am ko. yu mel nag li nga xamante moo di jafe-jafe yu ñu nemmee ko daal ci secteur uude bi nee nañ daal bu takku la daanu jël euh, gaal yi moo tax tamit ñu ngi sàkko ci nguurug Sénégal mu gën leen a jàppale te tamit euh, gestu leen rek bu ko defee li nga xamante moo di seen ay jafe-jafe mën a dellu ginnaaw. jafe-jafe yi ñu jànkoontoon moom parce que li ñuy jooytu moom mooy affaire comme li ñu daan wax chinois yeeg yooyu ñoom parce que bu fekkee da dem ba sa sa am na ñu fi nekk di liggéey ah di liggéey te li ñuy liggéey mën nañ ko nga dem ñu andi fi ñeneen ñoo xamante ne bii dañuy andi lu mel ni comme comme lool te ñoom ñoo la gën a ëpp moyen seen état ñoom ñu ngi leen di jàppale te ñun suñu état jàppale wuñu andi fi ñeneen ñu ëpp doole dinañ dem ba nga xam suñu liggéey. ñun dootuñu ci gis suñu bopp. te da ngay gis gars yi dañuy dem ba chinois yi di jënd ay dàll di ko dem di ko jaaywaat mais loolu noon tey noon nañ ko ñëw di ko jëndee si cordonnier man cordonnier man daanaka man samay xarit lañ samay lépp lañ parce que gis nga man du ma cordonnier mais si ñoom laay toog mais dafa am benn affaire bu am mooy que ne seen état Sénégal respecté wul cordonnier wu sénégalais yi loolu nañ ko waxta dee respecté wuñ leen parce que buñ leen respecté woon ñaata yoon man damay ñëw fii damay gis ministère yi ñëw taxaw fi di proposer cordonnier yi yoo xam ne dafa mel dañ leen nax te loolu noonu boo gisee lii da xam ne ñii dañ leen di nax mooy la moo bu ma toogee dinaa leen andi ay machines yoo xam ne col bi boo leen koy diw doo leen ko laal machine bi mooy diwal boppam yooyu noonu yooyu noonu yëpp man pour man ay nax ay nax la yoo xam ne tey bu demee ba toog yooyu noonu du ko du ko wane du ko jëfe uude yi nag sonn nañ artisanat laay wax sax ñun ñëpp a sonn boo leen bañee boo leen bañee nag gaal yi nag gën a yokk jàppale leen artisanat bi artisanat bi liggéey lañ xam buñ demee foofu liggéey lañ fay def kon fii nag da ngeen ñuy ubbil bunt yi ñu mën a liggéey ñun liggéey lañ xam ñun nekkuñu fi di taxawaal wala ñuy def le liggéey am nañ suñu métier mais dañoo bëgg suñ liggéeyee nañ dem fenn fuñ ko jaayee loolu lañu ubbil ñu marché yi ñu mën a jaay yi loolu nag état moo koy def état buy lii day protéger doomu réewam chinois yi dañoo seen seen seen état di leen a protéger ñun dañ ñoo war a protéger ñun loolu rek lañ bëgg état bi neewul kenn dem kenn ku ci ne boo yoree sa som sa benn som xaalis jéem a xool euh, nooy nooy nooy nooy nooy nooy noy nooy jéem a jàppale sa bopp jënd say outils toog sa atelier liggéey mais bu ñu demee ba xam ne yow mii kat nga am na ñoo xam ne mun nañ taxawu ñëw jàppale la mais bu fekkee da liggéey benn quatre cent mille bëgg ko yàq ci benn jour ñaari jour ci ki cakaayoo ko ñëwaat commencé waat à zéro kooku zéro plus zéro la quoi man noonu laa ko gisee. immigration clandestine wala mbiru mbëkk bi fi mu ne dañoo seetlu mu la ñëpp di waxtaane eh, fii ci Sénégal waaye uude yu nekk Medina ñoom daal teewul saa su tamit ñu ngi xëy seen ay bërëb yi nga xamante ni foofu la ñuy eh, liggéey daal daan seen doole teewul tamit ñu ngi koy gëm ndaxte lu ëpp si seen ay teraanga ak seen ay soxla si li nga xamante ne moo di ci liggéey bi la koy faje waaye li ni mel nag si ëpp si liggéey bi nag ay jafe-jafe kese daal moo koy laal li mën a wax rek mooy li nga xamante ni moo di nguurug Sénégal ak bépp autorité war na leen mën a taxaw eh, temm bu ko defee li nga xamante moo di liggéeyu uude gën a mën a jëm kanam rek bu ko defee ñoom duñu mës a xalaat benn yoon jël li nga xamante ni moom moo di gaal yi